bismillaahi rahmaani rahiim barke Seexinaa Seex Ahmadou Bamba xaadimul xadim xaadim rasul yërmande sëriñ Saaliw kiraam ak sëñ Fall doolay maam Seera Fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar yéen ñëpp nuyoo beeg siyaar bi maa ngi siy jiital ki yàlla jiital suñu kanam muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Al Bassir di ci tek Cheikh Amdi modou Mbenda Fall khalifah maam Cheikh ibrahim Fall waye non la ñuy nuyoo ak a sun sunu sun sunu bunt si yoonu suñu ci wak Cheikh Fall wi di Cheikh Abdou salam bakke mum suñ sang bakke mum suñ modou Balla jor mum suñ Balla jor momit ñu koy siyaar bax sang bu tedd bi di ñaanal mu yag fi lol te wér comme ni ngi ko waxe rek suñ khadim tay dañu fassiyene wax ak askan wi birum rew ak bitim rew xam-xam bu nu suñ borom baaxee muy njëriñ suñ digënté ñun ak ñom xam-xam bi nak ci walu fajj ak ñaan la comme ni nga ko waxé rek ñu judd fekk ko ci kër gi bin juddoo fekk ko suñu wajur wu goor tamit téwut ñu né wala ñu ne kii danoo jur danoo war dan koo topu tarbiye ko bam nyu. ñu ba yalla dogal mu def ci ñun limi def sun ñun ñu sant ci yalla suñu borom li ni defit ay ati ati ngi nii koy def ndax metti mo xamantene nek nga si ñaar fukki at yalla sutural la dara ñaawut lolu ndimbalug sun borom la ñong ci sante yalla comme ñewon nañ fi nak waxtaan si walu tawat yi tawat nak kenn duko ko tudd te wax siti li nga xamantene moy topum siti lim meuna def si dooma adama bëri na lool bo sété nit bu fekkentene dafa amé siti bir bi dina joy yaram yi dina faral di tang suufu tanki di tang muy faral tamit xarantey baram yi di toy surtout sank lañ bu ndaw bi di bul bu lekkee it day yeex rees day dem ba ànd ak hémorroïde muy seere biir bi di jooy bu dee góor a mun nay dem ba sëy di gaaw a noppi mun naa oyofal màndiwam mun naa nekk it walax ñaanam mu nekk point faible yooyu yëpp day am nga xam ne mun naa dem ba tax góor gi mun na am kàttan waaye pour mu am soxna mun na jafe pour mu am doom mun naa jafe bu ko defee tamit bu fekkente ne ku jigéen la dal tamit kasaalika na ko noonu biir bi day jooy yaram yi day faral di tàng day faral di seere régalam du normal perte place am du normal leg leg buy ñew day tang di am xet ndax wax day leer day dem ba buy and ak borom këram ñu bal ma ci waxin day metti wala muy gennat karaw gi day ruus wey yi di dag, sitti day def lolu kep kum dal bu ak serigne mam Cheikh ndjay woo ko 77 732 25 25 77 732 25 25 insha allah rabbi dina ko saafara bu dee góor bu dee jigéen dina ko saafara incha allah bu fekkente ne nii it néew doole la ci wàllu sëy néew doole ci wàllu sëy moom tamit bari na ay façon am na ñoo xam ne dañ leen di takk xala am na ñoo xam ne dañuy tële spécial am na ñoo xam ne yàlla day dogal ñu ame feebar mu jàpp leen yooyu nag day mat di leeral léegi léegi nit woo la ne la damaa néew doole fekk ne dafa tële te dama koy faral di wax liy faj liy yokk kàttan du faj tële tële ak néew doole baatu olof la néew doole mooy ki am doole doole mu wàññeeku muy ànd ak soxnaam muy gaaw tële mooy ki nga xamante ne nii da koo mënoon te mënatu ko kon yooyu bokkuñu ki nga xamante ne nii day yëg boppam di yëg kàttanam bu demee dem ba tiim soxnaam ju baal ma si waxan kanamam wàcc loolu rab moo ko def wala soxna si muy àndal am rab bu fekkente ne soxna si day nekk ak borom këram te du si yëg bànneex soxna sa moo am àndandoo parce que yooyu yëpp day faral di am. amna ñoo xam dañuy dem ba son waye seen man yiw du genn lolu tawat ci la ci ku góor ki parce que yi ñuy wax yépp lu am la ta lu ngeestu la lu xam la yit waye yoy yépp ko xamantene dal na la nga ak serigne mam Cheikh ndjay ci 77 732 25 25 wala nga woo ko 77 113 99 32 xamna du ñak ñu bindal leen fofu numéro bi. waaw ah, loolu ñu ni si xam bari na xam nga bayre moom bu la ko nit waxee ne dama koy liggéey dangay xool ba xam ndax moom ma koy liggéey am na ko wala amu ko loolu lu mat a bàyyi xel la bayre lu am la alxuraan bawut dara bayre lu ama am la waaye lu jafe la tudd ko yomb na bu njëkk mag ñi dan daan def lu mel ni siru àdduna di liggéey lu mel ni xam sun xaaf di liggéey lu mel ni wërsëgu sir xar nay ni ak tàttay fatiya wala dàkkum daam wala kundug njare wala wallu mag yooyu yëpp dafa amoon loolu nag ba léegi mi ngi am loolu ay bagage la yoo xamante ne boo ko waxee ku xam dëgg dëgg suru ñaan kay fiyaat dëgg dëgg yu mag yi dina xam ne lii am na bayre dafa am bu fekkente ne kuy jaay la da nga koy defal bayre mbooloo pour nit ñi di ñëw di sàkku si li muy jaay bu fekkee kuy liggéey la lu mel ni di ouvrier nga defal ko loo xamante ne nii chaque jour sànce bu mu am amaat beneen bu ko ëpp doole bu fekkente ne nii kuy def dara la bu ko siw siiw la muy def ngay ménganteeg tur wi adat turam adat turu ndeyam ak turu baayam xam ban rawaan la am liggéeyal ko la nga koy liggéeyal maanaam dafa am yoon bu fekkente ne nit ki ubbeeku rek la bëgg bëggut bayra it faawu nga xam rawaanam parce que nit ki bu fekkee dafa fees dell ak cat wala mu fees dell ak rab nga yëkkati ay liggéey jox ko pour mu sangatu te loolee dañu dafa mel ni nga tëj butéel bu bëgg see def ndox bu boobaa pour mu gis ko day jafe naan dem naa fu ne maanaam nit balaa balaa see siñ maam Cheikh Ndiaye di dugg da koy xool parce que bi yàlla suñu borom dogalee jàng jot jàng nan man ak sama mag ju baax ji sëriñ Modou Balla moom ñoom la sëñ bi ñun ñaar la sëñ bi boole woon jël jox ñu sëriñ son yi bu moom sëriñ Touba man yàlla def ma doonoon tout tànk ci jamono yooyu man sëriñ sëriñ son yi bu moom sëriñ Touba moo ma daral alxuraan ba ma fa bàyyikoo yit dama bokkat dong ndong yu jóge si sëriñ bu dem si serigne salim yalla defal ma tawfiq ma daara yu got yag fa lol limay wax ci tele lay wax ñi ma non daara xam nañ ko ñu nek fa liggeel yalla jang alquran bi ñu ñëwaatee it ñu and ak sun wajuru goor yu Cheikh Alassane Ndiaye goor yalla mu jël ñu jox ñu Cheikh basirou Fall alquran ndax dano dano dano danoo xidma bu baax a baax nek ak mom ay at ba deg jaajeuf ba am yalla bin ñëwee danoo toppaat sun baay takat laxasaay lu gëna metti lan dajoon ba li ñuy wax yalla suñu borom defal ñu ci lo xamne ne ñu si suñu benn morom ñong ngi si sant yàlla suñu borom bu fekente ne nii suñ xaadim nit ki day tux bu ko bayyi wala muy naan sangara bu ko bayyi wala muy moy yalla bu ko bayyi yor nan si ay mbiri mak yu wér bu fekente ne dafa bëgg ar soxnam ba kenn du ci dem ku dut mom tamit loolu amna fi day gis ko xamantene ni day jël alalam def ko si jigen, dem ba desul lu du tak tanki war am bu dee tànki caaxaan taxu koo jug takk rek moo ko tax a jug bu ñëwee ñu dimbali ko si ba mu takk ko incha allah waaye yooyu yëpp daal sëñ xaadim balaa ko kenn di jug di sàkku si siñ maam Cheikh nga jokkoo ak moom si 77 732 25 25 77 732 25 ñaari yoon numéro bi WhatsApp la. Mhm. yooyu. Mhm. ñi mhm. loolu dañ siy yëngu si ñaari fànn loolu am na benn tur yàlla boo xamante ne nii buñ ko adatee ba xam sa biddiw ban waxtu lay jug buñ ko defee si big bi nga xamante ne moom nga war a bind defal la si sangat nga takk ko sa loxo joor day sotti xam nañ ko it si geneen fànn xam-xam bu ñuul am na benn rab boo xamante ne nii boo ko gisee si àll bi lay ne ñamu kaw rek lay lekk lu garab sori ak moroom ja bu ko wiisee bu nee bëreet bu àggee loola da siy jot der booba am na ay baat yu yuñ siy bind kun ko takkal nga takk ko si loxo bi ngay bindee loo yóotu incha allahu rabbi di nga si jot loolu lu wér a wér wér la